Sénégal lu ëpp deux ans ngi nii seen doom nekk ci kaso bi fii ci diwaanu Sénégal li ko waral nag moom mooy dañoo bokkoon ci ay manifestations yoo xamante ne dañ leen a tegoon loxo loolee mu ngi xew depuis atum 2021 loolu moo tax ba ñoom ñi nga xamante ne bi ay famille lañu di ay famille détenu politique amaloon ndaje ak taskatu xabaar ni ko tey ji euh, fii ci siège bu Amnesty International fii ci diwaanu Dakar ngir sàkku ñu bàyyi seen doom ci nu mu gën gaawee ñu teewlu si ñenn réaction yoo xamante ne ñoom yëkkati nañu ko gannaaw bi la jotaay non am na ñu téye deux ans am na ñu téye ay un an trois mois am na ñu téye neuf mois am na ñu téye onze mois comme man mii man mii euh, onze mois dix-sept jours lañ ma téye bàyyi ma ne ma defoo dara loolu la mais benn fan sa duru benn fan day nga nga téye ko benn parce que ñi jàpp mille cinq cent et quelques détenus la ñu jaay doole tooñ leen jàpp leen te defuñ dara sont des innocents loolu moo waral ñu ne comme que nag Macky nee na moom mën na woon jàppul ay détenu politique ay agresseur la jàpp ay malfaiteur la jàpp tey jii mu revenir à la raison daanaka da leen di bàyyi day am na si xaw ma day dialogue ñun am nañ droit ñu toog woo suñuy woo àddina bi yëpp wax ak ñoom ne ñun sàkkuñu ay dialogue sàkkuñu am na si da leen tooñ ne leen bàyyi d' abord indemniser leen parce que ñu deful dara nga jàpp leen tëj leen réew mi dafa am yoon. dañoo am charte boo xam ne moo jur mboolem charte yi muy constitution voté ay loi yoo xamante ne. mooy àtte penc mi ku ci ne am xaq am yelleef kon nag diw laa àndal diw laa faral ma ne su cee jël nit tëj ko juróom-ñetti weer wala at ak ñaari at man sama doom baayam parti politique laa yor te forcé wu ko ne ko ci milité daf ko bàyyi mu milité ci beneen parti bu bokkul ak bosam kon keneen mënu ko forcé ne ko ne yow waroo woon dem foofu waaw kon nag li ñu mën a wax mooy ñaanuñu saraxuwuñu xale yi bu dee ne dañoo def liñ leen di reproché nañ leen leen àtte indi ay preuve teg ñu xam ne ñii ñoo def lii bu fekkente ne xam nañ ne defuñu dara ñu demoon fu nekk fii ak bitim réew wax ne que détenu politique amu fi tey ñoom ñëpp ñu ne seew di woote nañ ba détenu politique yi nañ ba détenu politique yi li olof di wax ñoo tulli ñoo tal ñun daal diggante bi li ñuy wax mooy rek nañ bàyyi suñuy doon. li xew Sénégal. Euh, jaaxal na ñi nekk ci àddina si yëpp samay ay naataango yi nga xam ne ay observateur lañu di suivre euh, l'actualité politique ak ñi dëkk fii ñëpp dañu jaaxle ci affaire u Macky parce que gisaguñu fii ci Afrique président boo xam ne attan na tëj ñaari junni ci ay doomam ci ay sitoyen ci ay kaso ñenn ñi ay xale yu ndaw lañu jëlee leen ci seen peggu yaay jàpp leen tëj leen benn euh, deuxièmement les cas de yi ñuy siñaale dañu bare torop torop torop ay xale yoo xam ne dañ leen di branché à l'électricité di leen euh, jàpp di leen dóor jàpp ay coup de ci seen digg gannaaw toj seen euh, colonne vertébrale yooyu yëpp gis nañ ko fi bu yàggul gis nañ fi itam ay handicapé yoo xam ne euh, jàpp nañ leen sànni leen ci biir euh, euh, panier a salade bi ba pare sànni seen li ñuy jëfandikoo pour mën a déplacer wu. voilà donc li fi xew moom dafa jéggi dayu alors personnellement li ñu bëggoon mooy président Macky Sall na libéré prison yi nekk Sénégal. prison yaa ngi fees del del del del del près de deux mille citoyens sénégalais pour la plupart des jeunes yoo xam ne ñu ngi leen soxla ci suñu lycée yi ci suñu université yi ci suñuy tool ci fépp foo xam ne mën nañ fa daan seen doole ñu jàpp leen tëj leen kaso pendant des mois et des mois te waxuñu leen loo xam ne mën na taxaw à dix de temps de la tenue de la campagne ñu ñëw ne leen yéen daal dàq nañ seen seen app et cetera ba fi leeg neuf mois la ñuy tenir euh, élection présidentielle loolu c'est inacceptable kenn du ko fi nangu kenn du ko fi nangu donc na euh, président dellu ci xelam te mu xam ne Sénégal gi ñun ñëpp ko bokk ndegem nag ñun ñëpp ko bokk bëgg nañ euh, le 2 avril mu joxe leng yi ngir wéyal seen xeex ñoom jur yi nga xamante ne bi rek ay détenu politique euh, la amee ñu ngi ne dinañu amal ab boo xamante ne daa ñu ko def le 17 bi ñu jëm muy samedi bi ñu jëm bu neexee suñu borom ngir bu ko defee daal di sàkk ñu daal di bàyyi euh, ñi nga xamante ne bi rek mooy euh, seen doom bu fekkente ne am nañu autorisation wala amuñu ko itam daañu wéyal seen xeex ci nu mu gënee mucc ayib gannaawaat suba samedi 15 heures place de la nation ñi ngi na góor jigéen mag ndaw surtout les anciens détenus parce que ñii suñu yaay lañ ñii ñu def ko war a def loolu suba ñu ngi woo presse bi ñëpp rek comme même fii même heure même lieu am na si ñun détenu politique ñun ancien détenu politique ñu wax ak Sénégal wax ak àddina bi ñu jàppale suñu yaay. li ñu sàkku nag jamono ji lenn kese la moom mooy nañu bàyyi seeni doom ci nu mu gën a gaawee balaa le 25 février muy date ba nga xamante ne bi jàppoon nañu ko ngir amal ay élection présidentielle fii ci diwaanu Sénégal.